ak waa OFOR Mamadou jox moom mooy coordonnateur bu volet approvisionnement bu ndox bu baax ci Touba OFOR wàllu forage yi euh, ndax gis nga ni def na ci def na ci jéego yu am solo ak ñaata forage la ak itam lan la ci indi comme comme apport. Euh, jërëjëf euh, Pape comme. sama naataango yi niñ ko waxee effectivement euh, Touba dafa nekk ci zone boo xam ne ci euh, suuf si rek la ñu mën a jëlee ndox mu nekk euh, ay forage ah, lu tax loolu lu tax ci suuf si rek lañ ko mën a jëlee. parce que effectivement jegewul dex boo xam ne dinañu mën a jël ndoxu eau de surface mais ci biir suuf si rek la ñu mën a jëlee ndox. pour le moment fi fi Dakar jëlee ndox nag. dinaa ci ñëw. Mhm. ci ci biir waxtaan bi. Mhm. pour wax rek ne euh, solution boobu la ñu amoon pour am ndox ci Touba. Mhm. mais dafa fekk ne napp bi nga xam ne moom moo am gën a am ndox. mën a satisfaire en tout cas besoin Touba ñu ngi koy wax napp maastrichtien. yaa ngi koy yaa ngi jël ndox mi ci trois cent mètres ba trois cent cinquante mais Euh, li ñuy wax la nature a ses secrets ndox moomu nekkul ndox moo xam ne ndoxu qualité la bu ñu mën a en tout cas jëfandikoo euh, euh, ci anam yi nga xam ne yi nga rappelé léegi ci sa ci sa introduction loolu bokk na ci jafe-jafe yi ndox boobu am na ay ferñeent yu ñuy wax chlorure mu xaw a am xorom am na beneen matière boo xam ne ñu ngi koy wax fluor loolu boo ko boolee bokk na ci li nga xam ne gën na su ma la déggee daal ndox bu baaxul ci wérgu yaram la noo ndox bu baaxul ci wérgu yaram ci yenn taux ci yenn taux yi parce que effectivement nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy jëfandikoo parce que amuñu pexe amuñu pexe amuñu beneen solution mais état bi aussi toogul rek croiser les bras nit ñi amuñu beneen solution parce que effectivement état bi installé na fi benn unité de d'osmose inverse buy togg ndox mi mu nekk ndox bu neex ñu teg ko ci loxo maawu raxmati mu nekk deux séries yoo xam ne ñu ngi produire ndox mu neex maawu raxmati di ko distribuer ci biir dëkk bi pour seen eau de boisson mais yeneen besoins yi effectivement ñu ngi koy jën ci ci forage loolu bokk na ci jafe-jafe bu njëkk ñaareelu jafe-jafe bi Serigne Moustapha wax na ko Touba dafay màgg màgg boo xam ne investissement yi dabuñu màggaay bi loolu it jafe-jafe la de sorte que ñëpp ñu dëkk Touba am na ñoo xam ne réseau bi yeggul foofu noonu nga toftal ci nag bu ñu ñëwee ci màggal nga xaaj population Sénégal ñeenti xaaj lu tolloog 4 millions de personnes <laughs> daje fi wala 5 mm-hmm. millions de personnes daje fi ñëpp di soxlaanoo ndox mais ni ñuy solliciter réseau bi réseau bi attanu ko donc dina am zone yoo xam ne day manqué pression dina am zone yoo xam ne mën na am ay ay jafe-jafe sans compter zone yi nga xam ne réseau bi yeegu fa loolu ay jafe-jafe la ñeenteeli jafe-jafe bi mooy effectivement Touba ak dayoom ni mu day population bi ni mu doy Mor Anta Lo wax na léegi taux d'accroissement bi loolu euh, ni ñuy gérer réseau bi du du du noonu lañ ko war a du noonu lañ ko war a gérer. c'est-à-dire donc loolu it cest à euh, jafe-jafe la. loolu laa bëgg nga expliquer ma ko ni ñu koy euh, gérer loolu ni ñu koy gérer. te waruñu ko gérer noonu. waaw ma ma maa ngi ciy ñëw Mor Anta wax na léegi clairvoyance su euh, Serigne Saliou Mbacké yal na yàlla yokk leeram. amiin yaa rabbal aalamiin. bi jëloon maawu rahmati teg ko fi pour muy appuyer effortu état bi ci jafe-jafe yi nga xam ne ndox mi mu ngi koy am <laughs> benn firnde rek laa ciy joxe. Euh, euh, euh, fuite yi nga xam ne mu ngi am ci réseau bi mu tey mun nañu xam ñaata ndox la ñuy produire par bés ci Touba mais mënuñu xam ñaata ndox la ñuy distribuer parce que amul nattukaay. d' accord loolu déjà problème léegi léegi d' accord dinaa ñëwaat ci yow sëñ sëñ Moustapha dafa lu mu junj. Mhm. est ce que li mu junj itam askan bi amuñ ci responsabilité. am na lu mu junju dégg nga ko mhm. di nga xam ñaata ndox ngay joxe. mais ñaata ndox ngay distribuer am na problème est-ce que amu itam askan bi nu ñuy doxalee ndox mi ci ay branchement yu jaarul yoon wala noo xam ni mën na sabote réseau bi ak yooyu est-ce que loolu itam askan wi amuñ ci responsabilité euh, waaw mën nañ ne am nañ ci responsabilité mais responsabilité yu partagé wu la ci acteurs yëpp mhm. noonu lañ koy waxee damay revenir tout rek en arrière parce que xëy na ndax dama fee xaw a dama fee toogal comité d'organisation mais mën na am ñaari facettes yoo xam ne dana gën a indi clairvoyance ci li ñuy wax ci Serigne Saliou euh, yàlla na suñu borom doole ay leeram doole ay xéewalam euh, moom ci jëmmi boppam parce que dafa am jafe-jafe yu fi amoon yoo xam ne ni unité de maintenance bi xawoon na ci néew doole tuuti ndax ni dëkk bi di màggee ak fiñ ko bàyyi woon muy dem di dox loolu it bi mu demee ba en fekk lu ko jiitu boobu mu am Euh, épidémie choléra ak yu demee noonu ñu koy jiñ ndox mi problème yi bari lool nga xam léeg-léeg sax dañ daan dem ba dañuy def ay location ay citerne man en quelque part euh, chef de village la ba tey daanaka loolu mi ngi am ah, location citerne yooyu waaw waaw may ñëw daa daa nga déclaré ay fuite mu yàgg lool ci réparation mooy comme li Mor Anta wax mhm. loolu nag xam nga ak ay lenteur yi nga xam ne moom la état di dox te munoo détails yu sew nga koy remonté ba ci que inutile maintenant ay limites yoo xam ne ci lay am ci loolu nag bi mu waxtaanee ak euh, communautaire bi fi nekkoon ñu waxtaan ak population bi ci ñenn ci jubawuñ ci ban doxalin la ñuy am parce que bon mu lim sentiroon mooy état bi sonn na ci liggéey bi faw mu am ku ko relier ndox diggante ma population bi ak ñoom kilifa yi ci loolu nag la wooyee Serigne Cheikh Aliou euh, xalaatal ko ne ko nag dama bëggoon ñu am nuñ gungee état pour taxawu leen ci ndox mi ci lañ xoole ba structuré ko muy parce que Maaw Rahmati dafa doon xeetu association boo xam ne day xaw a doon asifoor yi mhm. mais bokkul nag source de financement ak fu ñuy jëlee ay recettes ak yu demee loolu lañ xawoon wutee kooku nag bi ñu ko defee ñoom dafa gratuite wala déet Maaw Maaw dafa gratuite ci même buñ koy joxee non buñ koy joxee dafa gratuite benn moo ci am loo xam ne nii euh, du du gratuité mais am na acte social bu ci nekk muy ndox mi nga xam ne mooy unité bi la nga xam ne moom la la jox wax parce que unité boo xam ne nag day lakk courant di. non mooy bi def eau potable. eau potable boobu nga wax ni dafa dafa boobu. boobu boobu la ñuy am lu ñuy fay. mais boo koy fay boo xoolee bidon vingt litre bi ci koy consommateur mi ngi koy jëndee cent vingt cinq francs ca osmose lañ koy traité. kon kooku kooku loolu social bi lañ ci dugaloon moo tax sax mu àgg foofa. kon loolu bi mu amee ci la Serigne Saliou am institution bi pour taxawal dara loo xam ne dana leen gunge ñu taxawal ko ci tour Asifor muy dox di dem. mu féetewoo na nga xam ne day day day day day li nga xam ne moom la état def pour di ko gunge ci liggéeyin wi mhm. kooku loolu la boo déggee li tax ñu daan faral di wax ne que remplacer wuñ état ci ndox mi mais dañ ko ciy jàppale di seet fi ay manquement am ak liñ ci man ñu ko ciy gunge mhm. ci lañ dem ba bënn ci lu mat ay ñeent ba juróomi forage benn bi euh, ci xëy na buñ demee ba ci kanam danañ ko xam pour def dañoo amoon initiative bu indi ndox mu neex ci Touba ñu ngi ko jëlee ci daaru daaru daaru salaam Darma Euh, foofu parce que fu zone boobu dafa bokk ci zone ferlo bi muy maïsticien bi nga xam ne maïsticien bu baax la xëy na jox dana ci mën a del si tuuti defoon ko pour test muy doon Touba ndox mu neex nga xam ne à partir maïsticien bi euh, boobu ci foofu moom man na jël bogo man na jël ba Sadio gi ñuy wax ak feneen ak feneen mhm. pour conduire nga xam ne foofu mën nañ man ni ma koy tuddee toujours boobu mooy moyen terme mhm. court terme bi nag mooy nii ñu def di bënn ay forage ci suuf di ko alimenter ci bi di ko yokk progressivement mhm. kon ci xalaat boobu nag la ñu xalaatoon ne que Maaw Rahmati war na mën a jàpp ci fuite yi am seen équipe plombier en même temps di ko ànd ak unité de maintenance pour indi benn touche ci wàllu organisation bi. Mhm. ci gën a ba lu baree bari sax loo xam ne am nañ ko ci résultat ci loolu la juddoo. Mhm. kon day doon ñaar yoo xam ne da ci am muy Maaw Rahmati en permanence dafiy nekk lu mel ne comité d'organisation day nekk nag di préparer màggal gi en amont. Mhm. ba bu ñëwee ñu jël boobaa na ñu jël matuwaay yépp nag di relier di coordonner. les différents acteurs yi nga xam ne ñoo fi nekk. d' accord d' accord léegi sous préfet moom wax na ko nee na comité d' organisation bi dafay ànd ak Maou Rahmati euh, en amont maanaam di ko waajalee euh, li nga xam ne mooy màggal gi. Mm. ndax en aval maanaam buñ ci génnee itam. problème mu ndox warul nekk loo xam ne askanu Touba gi fi nekk ak li ko wër yëpp warul mën a nekk aussi loo xam ni dafay dafay dafay dafay jeex ci ñoom est que loolu état. parce que dañuy wax. taxawaayu maawu maawu rahmati ak yeneen ñoo xam ne ñi ngi taxaw pour ndox mi am waaye lu ci mën a am lépp état la waroon yan difficulté moo ci am ak lan moo tax état mënul fexe ba Touba mën a am ndox mu doy mu baax waaw Pape euh, euh, loolu euh, li ma la si wax rek mooy état moom te dinaa si indi firnde léegi du jóg ci maanaam fexe ba problématique de l'eau à Touba ñu saafara ko li ngay wax ne ndax am na en naval damay jël rek benn exemple mooy màggalu daaw bi ñu ci génnee bi ci génnee état dafa taxawal lu ñuy wax plan d'urgence plan d'urgence boobu fexe na ba tabax si ñetti forage benn Touba Ndiarème benn euh, Daaru Salaam euh, euh, Daaru Marnaan Feto benn bi Sam Abdou Latif waaye yemut foofu renouvelé na forage u Feto FKB Euh, réhabilité euh, château d'eau Ndamaatu waaye yemul foofu dugal na cinquante cinq kilomètres de réseau loolu ci plan d'urgence bi diggante euh, màggalu daaw ak màggalu ren donc loolu day indi donc benn benn benn benn nu mu teeti benn surplus ci existant bu am solo yaakaar naa ne jox mën na si gën a ñëw ci cubage bi nga xamante ne bii moom lay moom lay indi donc jafe-jafe ndox yi gaa lu am la waaye bu ñu wax mukk ne état defu ko priorité déedéet état xam ne ne parmi les priorités ici à Touba la question de l'eau occupe une place primordiale mhm. donc loolu moom wax dëgg yàlla ku mu war a mën a seede war a mën a seede lu mel noonu. d' accord d' accord léegi euh, Pape euh, Mor Anta yéen waa Maawu léegi sëriñ bi wax na ko donte social am na ci waaye ndox mi tam euh, maye woo leen ko. ni nga xam ni noonu la ñuy mayee ndox yi ba nga xam ni euh, daanaka ñu bari duñu fay ndox ci Touba euh, ndax yaakaaroo leen ni amoon na lu gën a yomb loolu bu fekkonte ni par exemple société bi jaay ndox ci Sénégal amoon na fi euh, espace bu yaatu est-ce que du woon solution pour que ndox mi baax ndox mi mën a yéwén comme yéen ni ngeen koy ni ngeen koy defee yéen waa Maawu. Serigne Moussa Moussa sànq wax na lu am importance. mooy que ndoxu Touba comme ni ma ko waxee ci début bi rek Serigne Saliou bi mu koy créé dafa gisoon ne état bi néew na ci bi muy créé Maou Rahmati néew na doole ci Touba. léegi nag comme res état moo yore responsabilité ndox mi état moom moo mën a jox sëriñ bi ay indication yoo xam ne buñ ko appliqué dinañ ndox mi dina dina dina dina baax dina yaatu dina ci ndax mu mënuñu wax ne nit ñi Touba aussi seetaan nañ. mais c'est-à-dire li ma bëggoon xam rek nga baal ma yaa ngi ci maaw yaa ngi Touba par exemple nit kuy dëkk ci këram naka lay def pour am ndox est-ce que am na ay démarches yu muy def pour am ndox naka lay amee ndox. ah oui ah oui am na ay démarches du da ñëw rek ndox sa kër avant ngay ngay ut robinet di nga dem ci village bi nga dëkk xam nga Touba moom. les grands quartiers ay villages lañ leen tuddee. Mhm. kon boo dëkkee Daaru Xudóos di nga dem ci bureau village Daaru Xudóos mu defaral la benn certificat de résidence buy wane ne Daaru Xudóos nga dëkk nga boole ko ak sa photocopie carte d'identité. Mhm. dem ci banque ci benn ci banque yi ñu am compte nga versé ko foofu mais yow boroom kër gi doo ñëw nga wut plombier boo xam ne ñun organiser nañu les plombiers de Touba. Euh, GIE maaw moo leen organisé nga dem ci GIE boobu. non li may wax nii lu jiitu maawu la wala ngay jaar ci maawu rahmati. non non non c'est feneen foo mën a jaar fudul. non non non il faut passer par maawu rahmati. Mhm. donc da ngay dem comme ni ma la ko waxee chef de village bi tey. après nga fay ñaata. soo ñëwee vingt cinq mille ngay fay mooy frais d'accès bi. Mhm. plombier bi aussi su ñëwee duñ ko bàyyi noonu rek mu joxe vingt cinq mille rek dina ko demal. Mhm. dinañ omp jël les données technique maanaam diamètre de piquage bi muy jëlee ndox mi distance bi muy def en plus ñu conseillé ko si naka la ko war a defee pour branchement bi mu def mën a am ndox donc loolu bokk na ci ay war Maawu Rahmati maanaam les autorisations de branchement moom moo koy délivrer. d'accord koo xam ni aussi dafa violer autorisation yooyu lan moo ko ci mën a fekk. ah donc soo ko violer dinañ ñëw. koo xam ni jekki-jekki ngeen gis ngeen ni am na ndox alors que branchement bi mu def dafa dafa clandestin non dañuy ñëw soo defee un branchement clandestin dañuy njëkk a ñëw arrêté branchement bi pour commencer convoqué plombier bi ko def parce que kooku moom mooy convoqué ko fan convoqué ko au bureau de Maaw Rahmati Maaw Rahmati am na structure am na am na ay bureau mhm. am na un service bu existé boo xam ne am na secrétariat am aussi am na ay superviseurs yoo xam ne daf leen jël lan moo mën a nekk sanction bi sanction bi déjà dinañ arrêté ndox bi tu vas payer deux fois deux fois le droit mm-hmm. ba pare nag dinañ la bàyyi quelques jours quelque temps avant ngay amaat accès si réseau bi mm-hmm. donc comme xam nga tubaab moom dëkku yërmande la aussi duñ la mun a dem yóbbu si yoon duñ mën a def loolu mm-hmm. parce que gratuité bi aussi nekk na facteur boo xam ne comme c' est gratuit donc yenn contraintes yu ëpp yi doo ko mën a teg. d' accord léegi est ce que yërmande boobu maslaa boobu du cause u jafe-jafe ndox mi. Oh, en fait du du cause bi. ndax bokk ci laa wax est ce que bokkul ci. cause bi quelque part c' est c' est am ah. na ci am na ci loo xam ne euh, yërmande boobu moo moo moo moo ko moo ko joué parce que gratuité bi daf fi daf fi yàgg. dafa yàgg dafa loo xam ne depuis depuis depuis Serigne Serigne Modou Moustapha la les gens n'ont jamais payé de l'eau kon loo xam ne da koy ñëw rek dindi tey da ñëw waxtaan ak ñoom xool ni ci loolu la maaw raxmati xool naka la nit ñi defee ba participer ci ndox mi d'accord loolu moo indi ay construction forage moom moo indi ay extension des réseaux moom moo indi yooyu yëpp d'accord alors OFOR euh, Mamadou jox ndox bi nga xam ni moom la OFOR di joxe amul beneen possibilité bu ñu ci mën a def c'est vrai am ngeen matuwaay yu ngeen jël ak euh, maaw rahmati dégg naa ko mais nu mu gën a mën a yaatoo ba ndox mi aussi gën a mën a neex ci nit ñi euh, yan matuwaay ngeen ci mën a jël. Euh, jërëjëf Pape dama nga may ma rek. forage bi mën a nekk nag aussi. nga may ma ma dellu si ci préfet Mar li mu wax sànq. Mhm. ci sa njëlbeenu wax waxoon nga effectivement que yàgg nañ di wax en tout cas ay promesses. Mhm. pour solutionner ndoxu Touba. may fàttali rek ne euh, daaw ci jamono màggal bi euh, euh, président dafa décidé woon de deux mesures fortes benn bi mooy ñu def un plan d'urgence boo xam ne dinañ yokk quantité ndox mi gën ko yaatal ci ay extension de réseau moo tax bi màggal bi passé ñu def réunion évaluation à Diourbel ñëw ànd ak les différents acteurs Maou Rahmati ak maire yi seet zone yi nga xam ne fa ndox mi gënoon a tar état bi décidé ci plan d'urgence boobu ñu yokk fa ñetti forage mooy forage yi nga xam ne préfet Mar. lim na nga baal ma mais man loolu daf may jaaxal. maa ngi mais daf xam nga pourquoi mu may jaaxal. Uh-huh. par exemple man damay nekk quelque part depuis presque ëpp na dix ans. ci Touba mais chaque année même problème bi la. cest à tout le temps yaa ngi gis citerne yi ñu génn ndox bu ndox bi ñëwul doo am ndox mi loolu du jeex. donc man mënuma comprendre ki nga xam ni muy man muy sama morom bi nga xam dafay màggal si wala mu dëkk Touba situation yooyu ñuy jànkonteel te chaque année ñu jànkonteel ko bu ngeen waxee yéen a ngi ci def effort mhm. am na yokkute buy am mais yaakaar naa ni yokkute boobu euh, ci ndox nit ñi war nañ ci mën nañ war nañ ko mën a gis sax ko ay lay wen mais Pape xam nga responsabilité état mooy citoyen yi fu ñu nekk ah. ñu indil leen les services sociaux de mm. base ah. wax nañ sànq kenn natable wu ko que Touba ni muy yokkoo rythme investissement yi dabu ko ça c'est un problème deuxièmement effectivement am na zone yoo xam ne amul réseau troisièmement wax naa sànq quand même le réseau le plus performant du monde nga dajale le le tiers ou le quart de la population du Sénégal ni ñuy solliciter ouvrage yi mais réseau bi pression bi du demee noonu moo tax muy am des faiblesses des zones de faiblesse loolu moo tax ñuy mobiliser effectivement ay camions citernes pour ñuy dem ci zone yi gën a reculer pour euh, dimbali leen ci ndox su ma dellu see ci mesure forte yooyu euh, commencé nañu di gis déjà impact ouvrage yooyu nga xam ne ñu ngi ko yokk ren ci euh, ci ci ci ci ci ci ci parc forage effectivement préfet wax na ko sànq mais forage yooyu def nañ ci également deux châteaux d'eau yoo xam ne château d'eau bu nekk 500 mètres cubes la ak benn château d'eau boo xam ne dafa moon ay jafe-jafe ñu réhabilité ko pour gën a yokk pression bi. ren ah. pour ren pour gën a yokk pression bi ci ci réseau bi. château d'eau bi nga xam ne moom lañu réhabilité bu am 1000 mètres cubes boobu pare na. ba fan la nekk château d'eau mu fii ndaamaatu. Euh, ci dafay dugg ci réseau bi automatiquement dafay dugg ci réseau bi automatiquement. Mhm. yeneen ñaari euh, château d'eau yu bees yi. château d'eau muy gën a jël temps que forage. Mhm. du pare avant le magal mais après le magal dina pare. Mhm. loolu. ak 55 kilomètres yi mu wax ak doon nañu jànkonte ak ay pompe problème mu pompe forage panne ñuy am ay jafe-jafe pour remplacer pompe ci plan d'urgence bi mhm. dañu commandé cinq pompes yoo xam ne dañuy am ay réserve nga xam ne pompe forage bu paane dinañ ko mën a remplacer du ñu am jafe-jafe forage bu taxaw ci ci màggal bi parce que dañuy prépositionner ay équipe pour loolu mhm. mais deuxième mesure forte bi mooy président dafa joxe ndigal pour ñu def un plan directeur càmbaraat réseau bi càmbaraat ouvrage de stockage càmbaraat en tout cas euh, li nga xam ne aju na ci ndox mi yëpp